abonné téléspectateur Foot Galsen 10 dal leen ak jàmm ci journal bi ñu jagleel lépp luy performance maanaam jaloore yi doomu Sénégal yi fële ci Europe ñi tàmbaleeg championnat Turquie foofu doomu Sénégal yu bëri ràññee nañ leen week-end bi ñi génn Papis Demba bu Alanya Sport ñaari but la dugal ci seen jongante Kassim Pacha bi ñu futbalee juróomi simili ñaar ci la dugal bi bu njëkk ci match boobu deuxième mi mu dugalaat Alanya Sport daan Kassim Pacha ñetti bal ci dara moom Papis Demba dugal na ñeenteeli butam ci benn semaine ginnaaw bi mu doublé contre Trabzonspor waxtu wi ñu toll Papis Demba Cissé mu ngi ci fukk ak benn libiyoom championnat Turquie Souleymane Doukara doomu Sénégal boobu di futbal Antalya Sport dugal na juróom-ñetteeli butam Super League club am am ndam ñaari bal ci benn ci seen jonganteeg Siva Sport dimanche bi Istanbul Başakşehir bu Demba Ba moo doon laaleeg Bursaspor bu Stefan Badji Henri Saivet ak Diafra Sakho jongante boobu Bachak Chehir moo si jëlee ndam ñetti bal ci dara but bi mujj Demba Ba moo ko dugal bi match bi di waaj a jeex moom Demba Ba mu ngi si ñaareeli bitam te ñetti jongante rek la amaguma clubam bu bees boobu di Istanbul Bachak Chehir loolu nekk départ bu baax. Galatasaray bu Mbaye Diagne ak Pape Alioune Ndiaye moom moo daan Akhisar Belediyespor benn bal ci dara fële ca Istanbul. ñi jóge Turquie dem fële ca Ligue 2 bu France foofu Habibou Diallo bu FC Metz match bu rëy la def ci seen jonganteeg Paris FC club boobu moo ko dugal bi ñu joué fukki simili ak juróom ci yi Diallo def ko si camp yi deuxième mi-temps mu dugalaat dalal xeli supporter am jamono ji Diallo toll na si fukk ak juróom ñaareeli but am Dominos Ligue 2 Joseph Lopi bu Orléans moom tam ràññee nañ ko week-end dugal na ñeenteeli but am championnat ci seen jonganteeg FC Sochaux club boobu di Sochaux joueur Sénégal boobu di Omar Daf mooy seen entraîneur jamono ji ñi toll. bitu Joseph Lopi boobu tax na Orléans jëlee ndam ci jongante boobu ñaari bal ci dara. Ligue bu France Stade Rennais bu Ismaïla Sarr Abdoulaye Diallo ak Mbaye Niang match nul la def ci seen jongante ak Marseille ndam demul ndam dikkul ku nekk dugal sa morom benn bal. Stade de Reims bu Edouard Mendy moom moo fekki Montpellier daan ko ñeenti bal ci ñaar Sada Thioub ak Nîmes Olympique Paris moo leen làbbali ñetti bal ci fële ca Parc des Princes Sporting Club d'Amiens bu Moussa Konaté daan benn bal ci dara nis bu Racine Coly ak Malang Sarr Angers bu Cheikh Ndoy moom defet la jëlee ci jonganteem ak Guingamp bu Papy Djilo Bodji benn bal ci dara Angleterre match bi ñu doon gën a xaar week-end bi moo nekkoon Manchester United contre Liverpool bu Sadio Mané jongante boobu match nul la jeexee ndam demul ndam dikkul kenn dugalul sa moroom Mané titulaire oon na match boobu te football na 90 minutes yëpp Cardiff City bu Baye Omar Niass moom Watford da ko fekki dëkkam làbbali ko juróomi bal ci benn Crystal Palace bu Cheikhou Kouyaté moom daa fekki Leicester gañee ko ñeenti bal ci benn Momo Jàmm ak Newcastle ñoom ñoo daan Huddersfield Town ñaari bal ci dara fële ca Saint James Park. Serie A bu Italie Napoli bu Kalidou Koulibaly ndam lu rëy la jëlee ci jonganteem ak Parme ñeenti bal ci dara Inter bu Keita Balde match nul la def 3-3 match bi doxoon diggante Sassuolo bu Babacar Xuma ak Spal bu Alfred Benjamin Gomis nul la jeexee ndam demul ndam dikkul ku nekk dugal sa morom benn bal. Chievo Veron bu Assane Diouf moom même résultat la def. ci seen jongante ak Genoa benn benn ñi jeexalee fële ca almaañ foofu Schalke 04 bu Salif Sané daanati nañ ko weekend bi Mayence moo ko làbbali ñetti bal ci dara loolu nekk seen fukk ak ñaareeli défaite Bundesliga championnat Allemagne jamono ji ñi ngi ci fukk ak ñeenteeli place bi te buñ ko continuer nii mun nañ wàcc deuxième division noonu lañ dar keppee journal boobu ñuy jagleel lépp luy performance maanaam jaloorey doomu Sénégal yi fële ci Europe di leen jox dig dajee ci ay fan yu néew pour yeneen vidéo bu leen fàtte di wu ci chaîne bi pour vidéo bu génn ngeen mën ko seetaan